askanu ginnaaw raay maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm surtout d'abord euh, may leen ma tuuti ma ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax di julli si bi sallallahu alayhi wa di sant suñuy ñaari waajur di sant euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim maa ngi nuyu ginnaaw raay noor bi yëpp di jël nuyoo bi également di ko teg ci loxoy monsieur le maire Waljojo Ndiaye moom mi nga xamante ne mooy boroom dëkk bi di leen sant di leen gërëm di nuyu également waa centre commercial maa nuyu képp kuy def activité commerciale ci centre commercial Guinaw Rails Nord di nuyu les artisans nuyu les commerçants di nuyu ñëpp nuyu les responsables yi fi nekk les délégués de nuyu à toute l'administration du centre commercial de nuyu sécurité bu fi nekk di nuyu samay collaborateurs, ku si Paco Sall mi nga xamante ne chargé wu lépp communication marketing et attribution de cantine et commercial di nuyu ginnaaw raay Nord de yëpp di nuyu samay samay camarades de parti di nuyu samay camarades de coalition Benno Bokk Yaakaar tey dama demain nous on tuuti surtout ak waa centre commercial dafa baax buñ la dénkee nga dawal daanaka un an dafa baax nga def bilan annuel donc tey dama bëgg a tënk sama bilan bilan at bi tënk ko ci ay kàddu yu ndaw pour na sa res communiquer ak Guinaw Nord communiquer également avec les commerçants et les artisans du centre commercial yàlla dafa def le maire ci kàttan yàlla nommé ma directeur général le 19 décembre 2022 ma jël service janvier 2023 yàlla def ba ñu ñëwee def ay réalisations yu am am solo si durant une année ñëw doon fekk buntu centre commercial mu doon am ay encombrement maanaam fu ko neex oto gaare fu la neex moto centre commercial bi tëju woon porte bi amul woon benn vue dès l'instant ñu ñëw suñu premier si la génne si la génne ay sommation jox ko ñi nga xamante ñoo doon encombré foofu dafa occupation anarchique fexe dégager voie bi su ko fait centre commercial en bien vue donc loolu lu ñu réaliser la avant ñu dawal tuuti même pas un mois deux mois talibi commencé travaux yi commencé loolu moo tax centre commercial bi am faut tout le monde ko gis donc réalisation yi lu ñu si def lu ñu centre commercial mu nekk centre commercial boo xamante depuis ba ko inauguré quel musul qui les caniveaux caniveaux yi maa ko njëkk a curé ak sama équipe manam moy canal yi 2018 le 2 février 2018 la ñu inauguré centre commercial ba ñëwé en 2000 en 2000 en 2020 en 2023 la kiré caniveau yépp lépp li canal mo daal koy ngatch bu mu set ñëw fekk lamp yi commencé lëndëm ma tal ko ci première phase bi parce que so xolé alimentation su yi deuxième phase la première phase ñu taloon ci plus de 200 lampes donc ñu dawal lolu commerçant yi ñëw di ma expliquer ne ma bon ñom dañuy am ci ay jafé jafé je suis dem pour am institutions financières pour am prêt dañ demander contrat de location en cours de validité donc j'ai renouvelé tous les contrats de location que puis commerçant ou artisan ma jël ce contrat renouvelé parce que le contrat est censé durer une année mais de 2018 jàpp 2023 mën nañ que contrat yi en cours de validité bëreetul woon ma renouvelé centre commercial j'ai fait des délégué ma organiser les élections du délégué organisé ko avec sama équipe ñu liggé ci liggéey bu am solo bien sûr ci instruction et orientation du maire Valdiodio Ndiaye lépp ay orientation la ñu dañuy nekk fi rek toujours pour dérouler la politique du maire donc lolu mu nekk ci réalisation yi ama am solo yi ñu fi def lu jëm ci depuis 2018 suñu ba ma ñëwee ak sama équipe lañu def général fait centre commercial mu nettoyé ko amu régisseur mon directeur général ñëpp mu wacc ci terrain bi ànd ak agent yi nettoyé centre commercial ba mu donc lolo, ci suñuy réalisation le bokk yalla dogal ba fi ñëwé état 2022 fekk na ko fi en termes de versement état 2023 bi commencé en termes de versement état 2023 rawee na état 2022 18 millions manam bu ma ñëwee ak sama équipe luñu jëm ci récolté ak versement yi rawee nañ ñi fi 18 millions en termes de versement donc lolo, mu nekk lu am am solo té lutax ñu mu leen ko parce que rigueur la ak liguey damay profiter lolu également di di di jéggalu lay commerçants, di jéggalu bépp doomu adama bi def activité commerciale ci centre commercial parce que des fois dañuy xey gis ma joxe instruction wala ma joxe ordre à ce que ñu tëj sen cantine surtout ñi nga xamante ne jotaguñu woon fay maa ngi profité si loolu cantine di tëju ma len ci jégalu bu baaxa baax ndax métti na lool ak la nga xey fekk ñu tëj sa cantine fekk fayagoo mu nek lu métti ñoo ñep daw ci ñoo fi

donc su loolu donc donc ne sait pas ce problème mun nga ñëw on en discute su laajee ñu jox le délai du jox le délai après nga fay mais donc moi ngi profité aussi loolu di leen jégalu le fait que ngay joxe instruction wala may joxe ordre à ce que ñu y a cantine yéen ñi nga xamante ne jotagoo leen fay. donc loolu moo tax ñu rawee état 2022 18 millions objectif bi mu am nag mooy fexe état 2024 raw état 2023 minimum 19 millions maanaam baata sama record bopp loolu bobu bëgg sama record bopp laa bëgg battre maanaam comme battre na record bu fi nekkoon fexé 2024 inshallah ci carton yalla ñu am 18 millions en termes de différence de versement. ñu joggé si loolu dem ci walu activité commerciale j'ai eu à organiser des des foires des foires yo xamantene ne c'est day nekk foire de de renommée internationale donc foire yo xamantene ne dañoo base centre commercial bi buntu devanture bi genre foire bu toll non musu fi am ba commerçant essa des fois de ñëw ne ma. DG bon ñun bénéfice bu ñu am ci si soir bi mosuñu ko am ci foire donc loolu mu bokk ci ci réalisation yi nga xamante ne jot nañ ko fi jot nañ ko fi organiser donc ren dama jël marché bi bu ko rénover bëgg naa marché bi mu am benn benn benn benn professionnalisme boo xamante ne dañ ko ci gën a améliorer dantak amoon na fi mais dañuy bëgg indiwaat beneen lu bees ba tax na dama décider chaque semaine ma woote benn réunion de conseil d'administration Maintenant, réunion bo xamantene administration du centre commercial bi chaque vendredi à 17h nous avons une réunion évaluer samedi bu ñu liggéey bu du lundi au vendredi ñu ma une réunion de conseil d'administration. lepp plus luy erreur lo xamantene tay dunu du lundi au vendredi Nous jëm ko éviter plus lu baax ñu améliorer ko donc nous, la jël en tant que responsable innover créer am chaque semaine réunion de conseil d'administration hebdomadaire donc loolu loo xamante ne lañ bëgg liggéey bu ko defee yenn erreur yi doot fi am donc lu jëm nag si làmp yi dama ko waxoon li tubaab di wax chose promise chose faite maa leen ko diggoon ne leen naa leen taalal làmp yi naa leen taalal ay projecteurs dès à présent commencé naa ko depuis la semaine dernière donc fexe taal deux 200 lampes si devanture bi commencé waa taalaat li gën a garaaw mooy yeneen làmp yu ñu taalaat mu nekk lampe yoo xamante ne de classe moderne ay lampes yoo xamante ne gis ko si centre commercial wala gis ko fi sax fay jafé donc jaral ñu ñu dem commander lampe yo xamantene C'est à l' extérieur la directement ñu installer ko centre commercial japp na ni lolu zaaru lampe yo ki mos ko fi installer même tay ñu liggé centre commercial installer wu ñu lampe yo donc lolu mu nekk ay réalisation yu am am solo donc am ben partenaire bu mag bo xamantene tay tey ñëw na waxtaan ak man ànd ak say collaborateurs nous siy profitons également de remercier euh, le directeur général du de la radio Raibi FM Noha Badji Nous remercions remercier au passage parce que mon copte partenaire nous sommes en phase de discussion par rapport à cette réalisation Maintenant, faire toi au centre commercial bi ardoise nous ñu des fois dafa ay projets yu am solo yoo xamante une liste de recettes. lay le donc projet yooyu si nous avons ko a restaurant des salle gymnastique des également benn terrain multi multifonctionnel donc lolo, nek na lo xamantene ne bokk na ci perspective yi donc ñu ngi sant yalla bu baax a baax di gërëm le maire Valdiodio Ndiaye aussi parce que tay daf ñu jappalé maire Valdiodio Ndiaye may na ma lu tollu 25 projecteurs na ma centre commercial de war a parce que tamit bëgg-bëgg mu ci le maire Valdiodio Ndiaye mu ma ci accompagner parce que centre commercial dama bëgg mu nek mu nekk sans élysée parce que centre commercial bëgg naa moom éclairage boo xamante ne tey ku dem sans élysée parce que su ma sañoon moom centre commercial loolu la ñu koy tuddee centre commercial boo xamante ne tey champs lay tudd parce que sans élysée moom gis naa ni moom wax dëgg yàlla référence la. donc loolu ñu si nekk loo xamante ne ñu si liggéey liggéey bu am am solo di remercier maire par rapport ak projecteurs yu ñu may di remercier également le maire Moussa dien parce que tamit jàpp na si liggéey bi doon ma wax non DG toogal rek projecteurs yi dina ñëw donc. Mère Moussa Dieng ñu ngi lay remercier si si si Bobu, ñu ngi lay remercier si appui Bobu, ba tay maire la war Jojo Ndiaye jàppale ñu si carrément ba ñu def réalisation parce que tay fi dama bëgg le directeur général bu ñëwaat centre commercial sama record jafé battre parce que j'ai eu à à battre un record dans le cadre du versement avec 18 millions de différence bëgg na battre son propre record inshallah avec 19 millions voire 20 millions ou plus bëgg naa su ma fi vais une trace dans la mémoire collective Je bëgg une mention honorable sur les langues de la postérité donc je mu que loo xamante ne tey su Je fi dem ba jóge fi beneen directeur général bu may remplacer mu am liggéey bu je jafe mu défi boo xamante ne dina jafe relever donc si loolu maa ngi profito di remercier à toute l'administration du centre commercial di remercier mes camarades de parti je remercie mes camarades de coalition Beno et Yakar, de remercier de le président de la République son excellence monsieur Macky Sall mi nga xamantene ne day tey si lañ politique di remercier suñu kilifa le maire Walter Ndiaye di ko sant bu baax diko ko moy li wax chaque jour mu nek confiance mu porter si sama modeste personne confier mo responsabilité ma ngi ñaan teg ko si yoon ba tey du am lenn loo xamante ne tey dina ko rëccu si liggéey bi di remercier sama équipe yëpp di remercier Banlieue Fësal TV di remercier euh, toutes les femmes du sant commercial ku si mel ni ay Gaye Diba ay Sophie ay Anna ay Awa Fall maa leen sant bu baax di leen si ay maire Soda ñu nekk ay jigéen yi jàmbaar yu may jàppale wax dëgg yàlla donc ay Issa Ndiaye ñu may jappalé Aswad donc ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di remercier également góor ñi aussi parce que xam nga ay Fama sar Fama aussi sama ko sama soxna la maa ngi koy sant bu baax aussi di ko gërëm di ko remercier donc jigéen ñi ñu may jappalé jappalé bu am am solo ba tax na ñu dara lu ma di remercier également à tous les responsables qui sont là les délégués Khalifa Ndiaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm il est il est très gentil ku baax donc, de remercier le délégué Yop, euh, le vieux Goursamb, de remercier également le délégué Pape Diop, de nous voir vraiment. On travaille ensemble, main dans la main, pour, que, pour, pour, pour pousser le centre commercial, nous de l'avant. Donc, lolo, là, pour, ne serait-ce pour faire Ben bilan annuel, lolo, nous devons réalisation du, du, de présenter, il y a une réalisation, il y a prévoir aussi ko ci les projecteurs su ma un nouveau marché damay dem marché artisanal damay dem marché artisanal taal ay lampe même lampe yi ni taal ay projecteur également si ginnaaw yëpp ma def ko ay projecteur alentour centre commercial bi yëpp fi camion yi di taxaw surtout hôpital bi taal ay projecteur en face la la gare routière taal également ay projecteur centre commercial dama bëgg mu nekk la ville lumière dama bëgg mu melni Paris la ville lumière dafa bëgg mu melni ni Champs-Élysées donc japp naa ni objectif boobu la ñu am di si sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant le maire Valdiodio Ndiaye jàppale nañu carrément si ay si ay si ay moyens logistiques donc vraiment ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm merci beaucoup je vous remercie.